Bassirou Diomaye fay moom bu bëggee Sénégal ci xolam dafa war a toog xool ne moom impôt et domaine bi mu nekk inspecteur sax attanu ko mu ne Sénégal dëgg-dëgg bëgg ngeen Ousmane Sonko Bassirou kenn bëggul ko Sonko la nit ñi bëgg bëgg ngeen Ousmane loolu waaye Sénégal ëpp Sonko réew mi toll na fenn ci relation internationale toll fenn ci niveau intellectualisme tollu fenn ci démocratie tollu fenn ci voie de développement li muy daw man xaw ko attanuma ko awma relation yi awma fit bi awma diplôme bi attanuma réew mi buleen ma wooteel bu leen ma fal mais du ko def Sonko yi du ko def ndax amul kàddu mu nga kaso te sénégalais buy fal basiru Diomaye fay tegoo ko ci xam-xam tegoo ko ci mën tegoo ko ci njub tegoo ko ci am ay relation internationale tegoo ko ci xam ni àdduna di doxee ak mën ko amul expérience ci tukki amul expérience relation amul expérience su expérience su def yaa ngi koy teg ci sonko ngi kaso yërëm naa ko naa ko fal ngir mu génnee ko mais Sénégal ëpp na sonko nag wax dëgg yàlla Cheikh Ahmadou Bamba fii la doon dund bi mu génnee àdduna Sénégal dafa dem ni mu bàyyee woon Touba tey la Touba gën a rafet tey la Touba gën a neex tey la Touba gën a yaatu tey la jumaa ja gën yaatu tey la nit ñi gën a jëli Touba mais dee na suul neen ko dafa tax Sénégal dem yàqu <laughs> Baye Niass Maodo même chose Léopold Sédar Senghor mi nekkoon ele président bu Sénégal première fois dee na sul neen ko Sénégal a ngi dem kon Sénégal a ëpp Ousmane Sonko ba nekkam ci kaso tax mu joxoñ ñu numéro 2 bu attanul sax Parcelles Assainies yi bu attanul caxaar bu attanul caaxo njigaar yi bu attanul Pasek Sokone ñu war koo jël def ko président wu Sénégal ci 2024 pour lan Sonko la ñu bëgg ñun moom mu ci kaso gi ki yee ko mën a génnee Sénégal ëpp na loolu franchement wallaay Sénégal ëpp na loolu te te nguur gi gën a ci àddina waxuma Sénégal ci histoire du Sénégal moom lañu ñu yam ndax bu leen fàtte waxoon naa leen ko Sonko wax na wax na wax na wax na wax na bañ def ko meeru soor mais bu paasee toxal ay turi tubaab def ko turu nit ñuul wax leen ma bilan Sonko ci mairie Ziguinchor ñëpp a nga ko nëbb noppi te noon naa leen mënu ko ndax amul relation yi defar mairie bi jubawut ak nguur gi te France bu ñu la joxee indépendance dañuy tënk sa nguur ba lu neexul président bi du am ndax ñoom président Afrique rek la ñu amal solo ñi si des yëpp suqu leen wax leen ma bilan Sonko en tant que maire de Ziguinchor tey mu ngi ci kaso gi adjoint mooy acte adjoint boobu noonu lan la seq ak nguur gi ak politicien APR yi nekk biir Ziguinchor dem leen ngeen gëstu ko <laughs> du ma joxe information parce que man nekkuma fi pour cadre man naa ni tey laay wax ak ñu xam li xew mais adjoint bi nekk Ziguinchor di acte in behalf of the mayor lan la seq ak Doudou Ka damay laaj rek tey Sonko ngi kaso ana waa Ziguinchor yaakaar gañ amoon ci moom ba voté ko ndax gis neen ko ñu wax dëgg te yàlla tax non parce que Sonko suñu doom la ñun Ziguinchor dañ ñu yàgg a beddi waaw nangam nangam Sonko la ñu am dañ koy puus lu xew baax na ñun dañ koy puus ba tey ñu ngi rey seen bopp ngir Sonko mais en tant que maire de Ziguinchor bañ ko falee ba tey lan la jëriñ lan mooy bilaam musu ñoo ragal yàlla génnee mbëggeel ak sentiment teg ko xel ak xalaat non ba tey ñu ngi du moy rek gis nga nag booy doxat di ko du mooy ne bii xeeñ na waaye du man di saw di ko du mooy bis boo puubee xam ne yaa ko puub Sénégal actuellement soxlawul Diomaye Faye te képp ku ko bëgg a voter génnee ci bëgg sonk génnee ci Pastef la tegal intérêt Sénégal nga wax yan raison moo tax nga bëgg fal Bassirou Diomaye Faye na ma xam-xam la na ma expérience la na ma relation internationale la na ma ay homme d'affaires yu pare investir Sénégal la pour ndaw ñi bu faloo rek ñu am liggéey basiru day mel ni gumba boo jël yóbbu ko Las Vegas na ko taalal ma làmp yi xàmmewul bu vert bu ñuul ñu waxante dëgg Sénégal soxlawul Diomaye actually right now